waaw asalaamaaleykum sunu mbokk internet yi ñuy seetaan ñi ngi leen di nuyu ko ci nekk ak turam ak santam di leen ziar di joxaat ñëpp seen wàccuwaay di siyaare ñëpp di joxaat ñëpp seen i wàccuwaay ak seen i yéeguwaay tey nag eh, yéen a ngi seen biir émission bu mag bi keppaaru waa Kër na bi tey ñu def eh, am ndaje dem foo xamante ne nii eh, fi ñu naan ñaari tali côté marché ngelaw fekk fi nit ku baax fekk fi nit ku yiw fekk fi ab jàngkatu xasaayit boo xamante ne nii. ñëpp euh, ràññee nañ ko ñëpp xam nañ ko muy Pape Ibrahima Ngom xasaayit tey moom la ñu fekk si fii ci euh, ñaari tali mu fas yéene ñu bégal ci émission bu mag bi bu ñu nee mag bi nee nañu waa kër euh, keppaaru waa kër na bi tey ñu dalal ko balaa ñuy def dara rek dañ koy jox mu nuyoo ndax mënta ñàkk ndax kat émission bi moom ni ñuy nuyoo rek mooy faw nga am noo def nuyu ko mbokk taalibe lay seetaan jëwriñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di xalifa général kullu murit di ñaan suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram ci barki yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu suñ keebaa di lu jataay beeg ak yitte yi ngeen dagg yëpp ngir suñ jëmm ak fonk xasiyaay rek waral loolu yàlla suñ borom fay leen tànki ñëw yeeg yu dellu yëpp barki Sëñ ñu ngi siyaare ñëpp rek soppe Pape Ibrahima Ngom yëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay jërëjëf ñuy may euh, ci euh, ëttu ëttu keppaaru waa kër nabi bi lan nga nu ci euh, lan nga ci may tey ci ci xasaayit boo xamante ne moom nga ni dalloo tey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillaahi rahmaani rahiimi allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin muhammadin fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدري ومقداري العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب نجنا من الشيطان برم جارم وجورة الجيران وسلطاني yaa rabbi yaa rabbi najjinaa mina seytaane e borom jaareem wa jawratin jiiraani wa sultaani wa kulli naafisin alal qadim borom jaareem wasaalin wahabidin asuudi wadaarixi suduron iltatmili kendu borom jaareem wa kulli tilmisin wasil balili fabiduwaayi yadriful balaya balaya wa bi rajain yujidu ataya fabiduwaayi يزرف البلايا وبرجاء يجيد وتايا فبدعائي يزرف البلاء بلايا وبرجاء يجيد وتايا jërëjëf macha allah euh, mbokk yi yéen a ko gisandoo noonu nee naa leen Pape Ibrahima Ngom Nabien nga xamante ne nii ñu nekk fii suñu émission bu mag bi keppaaru waa kër keppaaru waa kër Nabi nga xam ne moom saa su ne bu bu bu bu waaw nga xam ne moom saa su ne moom bu yëngoo. di nga di nga di nga di nga di nga xam ne eh, jàmbaar yëngu na jàmbaaru xasaay xasaay di yëngu na waaye nag loolu nag eh, maa ngi koy may sama yaay Seyni bu Thiam borom eh, borom almadi nga xam ne daa bëgg sëñ Tuubaa xasaay di lool Pape Pape Ibrahima Ngom tey ñu gis yàq xasaay di mm-hmm. ñu bëggoon xam kañ nga tàmbalee njàng mi. waaw jërëjëf sëñ Keeba ñu ngi am bu baax nag leen ñaanalitam bu baax ndax xam naa ne yitte yu yaatu ngeen dagg njëriñu jëm ak xasida yi yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla kàttanal leen waaye yal na yàlla guddal seen fan te wéral leen barkim xasida yi waa njàngam xasaayit nag xam naa ne maa ngi ci dugg bu ma juumu daal ay côté 2008 2009 xam naa boobu nag moom boo génnee samay at moom li ci des du bari boobu moom li ci des moom xam naa boo ci génne du bëri boobu ay xale yu ndaw la nekk ci daara yi njàngam xasaayit neexoon ñu lool ñu daan ko foye bu baax a baax boobu sax mën naa dooruñu ay jànkat waaye dañ ci daan nekk daal ku nu gis daal xam ne ñun ñi bëgg nañ njàng mi ñu di ci yëngu bu baax a baax ginnaaw gi nag ci lan yàlla dogal ñu dem ba di di di yëkkati xasaayit yi wax dëgg yàlla noonu daal la tàmbalee 2000 côté 2009 yooyu daal la. Mm-hmm. macha allah euh, bu ñu gisee air yi euh, ñu bëggoon xam euh, yow yaa ko yaa ko yaa ko bindal sa bopp wala wala ay air yoo roy la. waaw même air yi. man nag euh, léeg damay damay roy ci mag ñi damay roy ci mag ñi bu baax a baax waaye itam teewut am na air yoo xam ne tey jii su yàlla dogalee ma ma war a génne son wala ma war a génne lu mel ni vidéo yooyu am naa sama air bopp yoo xam moom laa koy génnee waaye nag soo mu woowee ci baas lu mel ni barki démb bi ni euh, programme bi ma amoon fii ci xombal nga xam ne màggal Tuubaa Nduuf gi tamit dafa tombee nag euh, jour boobu la woon. nga xam ne yu mel noonu moom mën naa cee ñëw jàng comme jàngi mag ñi laal sama air lu lu loo xam ne lu gàtt lay doon waaye teewut nag uh, am naa sama yëfi bopp daal mais maa ngi roy ci gaa yi tamit nag mm. waaw. waaw nga ne am nga sa yëfi bopp te bu ñu xoolee tamit uh, Pape Ibrahima Ngom daan nañ la gis ci ay bâche yu mag. waaye euh, say mbir say mbir jàng lu bari ay xasaayat laa ci dégg. xasaayat laa ci dégg euh, olofal gi li nga koy def bariwul lan moo waral loolu euh, daara ji nga nekkoon la wala wala wala wala bind olofal bi ci nga ci nga gën a focaliser wu yow. waaw lu mel ni comme noonu nga ko waxee maanaam ñun yàlla daa dogal ñu yàgg ci daara ji. nga xam ne Touba lañ doon jàngi daara. Mm. ginnaaw gi nag bi sunu waajur teelee génn àddina sunu waajuru góor. ginnaaw gi ci leen ñëw fii ci xombal dëkk bu nuy wax euh, Touba Ndouf mm-hmm. bi ñëwee ci dëkk boobu ci Touba Ndouf tamit foofu leen àggalee sunum njàng ci Cheikh Abdou Lahad Fall mm-hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax di ñaan suñ borom guddal fanam te wéral ay cëram mm-hmm. xam naa du ñàkk dina bàyyi xel émission bi bi ñëwee moom itam ci leen àggalee sunum njàng ba tey ji foofu nag ci la yàlla dogal nag ñu doon jàngaale xasaayit yi ba tey ji nag mais wolofal itam léeg-léeg ñu ñu xool wolofal yoo xam ne ñun ñoo koy bindal suñu bopp mm-hmm. fexe mu génn doon son wala mu nekk leneen. Mm-hmm. Mm-hmm. bu ñu bu ñu gisee eh, nitu daara nga nga jàngee ci daara eh, jàng alxuraan wàccee ko yàlla xirtal la ci njàng xasaayit waaye ndax ci njàngam xasaayit bi rek nga yem wala dafa am leneen loo ko booleel. waaw man nag dama am métier di liggéey. ndax man damay faral di wax ne jàng jàngum xasaayit du métier. man loolu ma koy faral di wax bu yàggure bin ma éviter ci benn kii. Ah, yàqu waaye mu mujjumul am na ñu ko def métier de. waaw am na ñu ko def métier maanaam mënees na cee liggéey. Mhm. waaye man damaa jàpp ne du métier. Mhm. moo tax man ñi nga xam ne sañ naa leen ko wax ñuy samay moroom. Mhm. man képp ku ma ciy digal nga xam ne man sañ naa la ko wax rek. dama naa la fexeel am métier boole ko xasaayit yi. ndax léeg nga dégg ñu tuumaal jànkatu xasaayit fekk boobu Euh, ñàkk métier moo ko waral boo mën métier xañ na doom googu jot ban di ko ca tuumaal mm-hmm. man loolu dama koy naqarul bu yàggu rek maa ngi ciy wax mm-hmm. xam naa ñiy bàyyi xel Pape Ibrahima nañ ci xam dara mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla daal bu ma seen jàngkatu xasaayit ko euh, fa ngay toll ba war a bàyyi ba war a bàyyi métier pour topp xasaayit yi yaakaar naa foofu ku fa àgg moom àdduna bi dinañ xam ne yow war ngaa bàyyi métier mi te dem jàngi ndax njàng mee la soxla boobaa waaye wax dëgg yàlla war ngaa mën a am métier di xëy di liggéey boo wàccee dem dem jàngi mhm. wax dëgg yàlla man de noonu laa koy doxale ak sama gars yi ànd ak man ne sama ginnaaw ma leen di nuyu bu baax di mhm. da leen ñaanal tawfeex Sëñ Baye Samba ak Sëñ Fallou gars yëpp daal ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax waaw jànkat yi ko dégg eh, ni Pape Ibrahima Ngom waxee mhm. nee jàng xasaayit du métier ndax nit kat nit looy def da nga ci war a boole métier ndax moo lay moo lay jariñ ndax Serigne Touba bu ma jumul liggéey jaamu yàlla la wax kon kon kon xasaay di jaamu yàlla la nañ ko nañ ko booleeg métier mi. waaye sëñ Pape Ibrahima Ngom ñu gis tamit euh, say say njàng. dangay faral lu bari di di di di di di di jàng xasaay di. ndax xasaay di ci nga yem wala wala wala wala yaa ngi waajal loo xamante ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa la ndax euh, émission bi keppaaru waa na bi la mënta ñàkk tamit nga nga nga may dara ci sallallahu alayhi wa sallam man de loolu laa lay ñaan balaa ñu yeggali fenn rek. waaw même man mi sax am na wolofal bu may waajal. maanaam nu ma ko mën a waxee album bu may waaj a génne. Euh, xam naa yàlla daa jotuma la koo na wax sax mais maa ngi ko doon waajal fan yii yëpp. Euh, album bi nag xam naa boole naa ci boo xamante ni. boobu moom xam naa ne bëgg naa mu nekk clip bëgg naa mu yaatu tamit. Mm-hmm. xam naa boobu ma laal ci tuuti rek. <laughs> mbokk mu baax moo jërëti toro murit ak tijaan xaadir laayeen xameewunu leen nekkin wi rafet na yàlla nanu yàlla fayub yool mbokk mu baaxee moo jarati toro murit ak tijaan xaadir laayeen xàmmee wunu leen nekkin wi rafet na lool nanu yàlla fayub yool kuy daggum mbokk baaxul nit ku baax du fecci kóllëre waxal nu baax baa nga maandu boo duggee ci bàmmeel nga yaatu nit ku baaxee day ñàkk ki iñaan day lekk lu baax ni sawara di lekke matt déggal ni yàlla ko wax ci alxuraan واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا yàlla ko wax demal caw jiraat kuy daggung mbokku baaxul nit ku baax du fecci kóllëre waxal nu baax baa nga maandu boo duggee ci bàmmeel nga yaatu mat ngeen ay royuwaay réewum Sénégal am nan ngeen gi weeruwaay mat ngeen mat ngeen ay royuwaay murit ak tiijaan xaadir laayeen am nan ngeen gi weeruwaay ko ci gis muy samandaay royukaay bu mag ba muhammadu rasuulillaahi yàlla na nu mel melow rasuulillaahi laxasaayu dooni baay faal di bay ci réew mi ay waar yu yaatoo ndax yomal xiyaam yomal sunu kër ya yaatu yàlla na nu melow melaw rasulillahi melaw rasulillahi la xasaayu dooni bàyyi faal di béy ci réew mi ay waar yu yaatoo ndax yombal xiyaam yombal xiyaam sunu kër ya yaatoo naa nag dañ koy dagg foofu rek ndax xam naa ne bëgg nañ ma bokk ci album bi nii waaj a génne mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla euh, xam naa ne sax ñu bari ñu ngi koy sàkku di ko xaar mm-hmm. ndax euh, xam naa ñu bari yëg nañ album bi nii waaj a génne mm-hmm. xam naa dañuy bàyyi ba booba rek bu ko defee mu gën a taw feexe waaw ndax jot gi ma yóbbu macha allah mbokk yi bu ko gisee lii nee naa leen lii ci SBT Média rek lay xewee ci ëttu euh, keppaaru waa Kër na bi waaye xam naa ne euh, sama papa ji daanu na euh, ma sekk Thiam nga xam ne daa bëgg Seydina Mohamed bëgg ko lool ba ba bind ci moom livre 750 pages jox ko jox ko Sénégal jox ko àddina waaye nag euh, Pape Ibrahima Ngom ñu gis yéen jànkatu xasaayid di ah. da ngeen am problème. Ah. problème bi jaaxal ñëpp mooy yéen di tibbante tànk ci yéen la ëppee. tibbante tànk yi xaaral ma ñëw rek. ci yéen ñi la ëppee. <laughs> wala bu ngeen demee ci biir bâche. da ngeen di du ngeen xaar sax ñu woo leen ngeen siif xëccoo lan moo waral loolu. waaw sang bi. jërëjëf waaye man de damaa jàpp ne. njàngum xasaayit. bokkut ak mbërum làmb. jàngatu xasaayit bokkut ak mbërum làmb bokkut ak ah, man de loolu laa jàpp. Mhm. te yaakaar naa man ñi nga xam ne yàlla booleel na ma boole na ma ak ñoom ñëpp. Mhm. ñu nekk ay jàngatu xasaayit. xam ne man sax damay gone ndax daanaka bu may xool ñun ñenn ñi may. seqal ñëpp ñoo ma féete mag mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla suñu diggante mu rafet na loolu mm-hmm. te xam naa ne kenn ku ne am naa yaakaar ne li nga yéene sama nga ma yéene ah, waaye dama lay wax benn benn mbir kat ndax ndax ndax euh, man damay gis des fois ay baas nit balaa ñuy dugg ña ngay diwu ña ngay ña ngay raxasu ña ngay suul ndax yow euh, de bokkoo yow waaw man de xam naa ne maanaam li ma yéene sama bopp moom laa yéene ñëpp mm-hmm. te yaakaar naa nit bu nitee rawatina nga jaar ci daara xam alxuraan. Mm-hmm. yaakaar naa war ngaa mën a jombale sa bopp lu bari. Mm-hmm. ndax fi mu ne li nga bëggut mu dal la waroo ko yéene nit. Mm-hmm. tey ji man yéene yéene bi ma am mooy. li ma bëgg lépp ma bëggal la ko li ma yéen sax ma yéene la ko su ma ko defu rek man bu bu ma jàppee naa dem damay nax sama bopp. dëgg loolu mooy àddina. nit ki li nga yéene sax da nga ko yéene mbooleem jullit. yéene ko rawatina sa mbokkum jàngoro xasaayit. fi mu ne tey ji léeg mag boo xamante ni ku mel ni Cheikh Abdoulaye Diop xam naa mi ngi bàyyi xel émission bi mm-hmm. moom bis bu mag boo xam ne moom jànkatu xasaayit yi mm-hmm. tey ji su ma noonu ko naan ànd yitteem yëpp lay dagg Mhm. ñëw ànd ak man te moom ma féete mag moom ma dàq jàng moom ma ëpp lépp mhm. moom ëpp mooy ëpp ma lépp mhm. du sama morom ci daal mais tey ji su ma man su ma man programme boo xam ne maanaam yaakaar naa diis na bu mu nekk nan dem mu ànd ak man dem waaye lan mooy indi yàqante bi nga xam ne ku ci ku ci ku ci ku ci jàng génne ci benn album rek euh, sa morom du la ko yéene soxorante bi am te te te ñu koy gis yéen yéen ñi nga xamante ne yéenay jàng xasaat te ngeen bokk ci benn kër waaw xam nga li ma doon wax sànq rek moo dikk nee naa la jànkati xasaayit yi maam tuuma yi bëri na ci ñoom waaye booy xool ñi nga xam ne dañuy ruube rek ñoo ci nekk mm-hmm. parce que àddina moo demee noonu fi mu ne téer baak maçon baak même yéen ñi di liggéey ci wàllu média a léeg-léeg nga dégg ci koo xam dañ naan newul newul la ko war mm-hmm. àddina mooy doxe noonu mm-hmm. maanaam kenn ku nekk la la dugal ci mbir mi fi mu ne bu fekkee jàngum xasaayit xaalis moo la ci dugal wala bëgg tur dugal wala bëgg siiw moo la ci dugal ah na yooyu dana la ko jaral mais fekk dañ ci yàlla rek wala boog lii la ci dugal sax xamoo ko ak bëgg moo la ci dugal yaakaar naa man man li ma lay ah. liggéey du du njàng laa yaakaar dama am métier di liggéey su ma wàccee bu may programme dem bu mu programme toog dem programme yu ñu ko woowul wala mu dem fekk programme ay jànkat toog mu bëgg mu bëgg siif micro bi waaw loolu moom wax dëgg yàlla ma ko def Ah, man dama ko dégg de ndax man dama dama man dama am ku ma ku ma jàppe sama bopp te daa am ku ma bëgg a doon mhm. daa am ku ma bëgg a doon am ku ma jàppe sama bopp moo tax du ma bëgg def lenn ma nit di ma ko du ma ci yàq dara su mënta rafet du ma ko yàq kan nga kan nga bëgg a doon yow waaw kan laa bëgg a doon am koy roy wala kan nga bëgg a doon xam nga maanaam ñàkkuma sax ñu may roy ndax am na ñoo xam seen i doxin rafet na mën ngaa mën ngaa roy ci ñoom seen seen seen lépp rafet na waaye yaakaar naa daal fexe ba fexe ba sax ci ak njub ne ci li la war yaakaar naa loolu dara gënu ko loolu dara gënu ko. Mm-hmm. sa fexe ba ne ci ak njub ne ci li la war. Mm-hmm. nga xam ne kenn du la mën a kenn du la mën a yab daal kenn du la mën a dépassé loolu am na solo. kon waaw boo diggee ma wax loolu xam nga loolu li ma la wax du mën a ñàkk ndax loo gis rek am na ñuy ruube yéen cameraman sax am na ñu doy waar. <laughs> dëgg loolu dëgg. boo ko ci cameraman yi de. <laughs> waaw ah. maa leen di maa mais ñi nga xam si ni ñoom la seen loxo seen leen bàyyi xel ku ci mel ne kan waaw xam nga xam nga bu ma limee rek mën naa mën naa metti du duñ mën naa lim ba ba téeméer moo tax maanaam lim gi sax daanaka du ko jar mais ku mel ni seen xaayam gi exemple nga xam ne moo ne a ci ñun gone nga xam ne nekk sa kaw wala moo nekk sa kaw daanaka il faut wax ci benn mu leer moom moo ne ci kaw <laughs> waaw ci maanaam ci li ma ni ma ko mën a expliquer rek yow yu bëri bëri yow yaa ko mën a comprendre non ndax moo nekk ci kaw wala moo nekk ci kaw daanaka waaw man xam nga man si xaayam dama koy roy ci lu bëri dama ko roy ci dignité bi ko ci lépp. d'accord mais damaa bëgg nga jël sa responsable nga ne Serigne Khadim Gueye moo nekk ci kaw wala nga koy laam-laam nga xam nga laam yi amu ci. waaw laam-laam yi amu ci. Mhm. daa am loo xam ne maanaam du jar yenn débat mu gudd. Mhm. maanaam loolu exemple lay doon. Mhm. non non maanaam Khadim Gueye daa ñëw am ñu fi fekk. te day ma man ma ñu am ñu xam nga da nga ne xam nga da <laughs> moom moo nekk ci kaw da nga koy laam-laamee loolu loolu moo am. wala wala kan moo ne ci kaw laam-laamee moom ah, xam nga bëgguma ko mooy. insisté naa ji. Mhm. insisté naa ji pour cité ko. Mhm. mais comme que yéen a ngi euh, bëgg a kii man ñu si bëree bëri ñu si ëpp ñu si ëpp maanaam ñu si bëri ñu bàyyi xel si Xaadim Gueye kon maanaam war naa mën a am sañ-sañu jël exemple ci moom. mais suñu xaalis yooyu rek nekku ci ñoo xam ne. nekku ci dëgg la seen jombaay yi bëri na. Moustapha Seck Arim Kébé ñi ngay wax ni yëpp samay wóor la. ak sa Samb. waaw ñi ngeen wax ñëpp la ren. Mhm. a bëgg dama a bàyyi xel. est-ce que yaa ngi dégg su ma ko cité woon nga ma nga ma tax jëloo Xaadim Gueye su ma jëlee Akasa nga ma tax jëloo Xaadim Gueye moo tax maanaam il ma tudd kenn bëgguma koon tudd waaye yéen ma ci dugal. dëgg la <laughs> dëgg la waaye léegi leneen li mooy Pape Ibrahima Ngom te te tontu ma ci. lan moo tax Pape Ibrahima Ngom di dem ay cant ko wala programme mu jàmbur bu ñu ko wóol muy dem di jël micro micro jàmbur te kenn jox la ko. waaw xam naa loolu moom loolu moom xamuma ko la ko wax waaye juum na moom. Pape Ibrahima moom ah, xam na di ñu tëj ñi xam suñ Pape Ibrahima Ngom yëpp xam na ne du dem ci luñ ko wut wala élargir ndax li tax ma dem ci loolu ma wut man damaa jàpp ne daa am ñu ne sama ginnaaw di ma roy. Mhm. donte xale laa di am na ñooñu sax jàpp naa ne ñoom mhm. a waaye tiw dañuy sama doxin day neex ba ndi ba ndi roy. Mhm. kon nag koo xam ne da ngaa am koo bëgg a doon bëgg a doon royukaay comme ni ma la ko waxee sànq si Serigne Khadim Gueye wala ku mel ni moom. ku mel ni Serigne Akassa ñëpp rek. ñi nga xam ne seen doxin rafet na. kon ñu mel ni ñoom jàpp naa ne bu fekkee bëgg ngaa àgg fan àgg. yaakaar naa dina am noo noo doxee dina am noo waxee mm-hmm. waaye doo dem ci programme jam bëgg ko yàq xamoonu programme programme ëmma kooku jot man mm-hmm. ne naa dama am métier ëmma kooku jot mm-hmm. fi ne sama liggéey laa dagg ñëw woon na Sëriñ Tuubaa xëyoon nag moom boo ma wooyee foo xamante ni yaakaar naa xaw naa xëcc lu mel ni àllu Bawol bii wala fu sori rek ba ma fa wooyee moom yaakaar naa dañ ma jox sama wàccuwaay nu mel ni paas ak yooyu noonu bu ko defee mandel samay gaay sama kuréel ànd dem. waaw ma foon duguma la ma foon am jàng ko sax. Hmm. fay ko kat yàlla la. Ah. jaamu boo amee fay moom loolu dana doy Ba. waaw jaamu yàlla la njàngam xasaayit jaamu yàlla la. Hmm. que xasida yi moom loo ci bëgg rek jàpp naa ne bu sell la nga dikkee li war ci yow yëpp dikk. Hmm. cër bi ñu ko war a jox nga jox ko yaakaar naa dara jómbale ci àddina mm-hmm. doo ñee kenn dañ lay gis di la ñee kay même bu yor fukki dërëm mm-hmm. doo ñee kenn nit ñee lay ñëwaat doo la ñee kon kon li nga foofu mm-hmm. fayeku ji jàpp naa du mën a ñàkk ndax xam nga du mën a ñàkk man du ma jógoo sama kuréel nga soxla ma ma jógoo sama kuréel gi yëpp dagg sama a dagg sama liggéey bi may liggéey teg ñawi jàmbur ko jama say ñoo ma teg ko télé ànd ak sama kuréel doxe fii ba jël pa jël oto bu ndaw dem ba Saalum yaakaar naa war nga maa mais xam nga yaa ko yaa ko yaa ko yow yaa ko opté. xam nga yow yaa opté. Mhm. xam nga xam nga xam nga xam nga yow yaa opté nekkub jànkatub xasaayit. yaa ko opté xam nga mënoon nga yàlla mënu laa xirtal ci musique te boobaa musique moom ñëpp xam ne dañuy fayeku waaye am jàng xasaayit boo ko boo boo ko opté yàlla dimbali ci. Euh, waaw amatuñu différence de. Eh, eh, bari na bari na bari na. mais ma laaj la foofu yan jànkatu xasaayit moo tax ma ne jànkatu xasaayit dafa am ay nit ñi bokkul loo gisee àddina dafa am dafa am ñu wute. Mhm. waaw même même cameraman bi cameraman lay wax te pourtant am na ñu sikk xaw ma yow xaw ma keneen même nañu si. ma bëgg wax kay mais waaw kay kay waaw mais musicien am na ci ñu baax am na ci ñu doy waar caméraman am na ñu jubal am na ñu aw weneen yoon. Mass xam nga man lu ma jaaxal li ma jaaxal li ma jaaxal Mass ma koy laaj mooy ci jànkatu xasaay di li nga wax mooy dëgg parce que dañuy jël fi mu ne ay wayu euh, ay wayu musicien di ko di ko woyaat maanaam da ngay dem ba doo doo xàmme wala ay air xam nga ñun ñun ñun moom ay noppi gar mi la ñu yor des fois gars yi nga dégg seen biir olofel eeru Thione Seck eeru Youssou Ndour eeru eeru eeru la am sax dama koy dégg ci gaa yi ma bëggoon xam léegi yéen euh, musique bi musique bi la gaa yi gën a jege wala jàng xasaayit bi. waaw xam nga daa am loo xam ne man duma ci mën a wax ndax li tax du ma ci mën a wax mën naa am sax li nga xam ne man yëguma ko. Mhm. parce que man am na ci yu bëree bëri bëri man naa am du ma ko siifur. Mhm. ndax man fi mu ne tey am na ñoo xam ne maanaam ña nga la leen concerné. Mhm. te neen ay jànku xasaayit la. mënoo leen a génn ci xasida yi mënoo am na loo sax amoo sañ-sañ wax leen ko parce moom moo ma leen jëndoo ko moo ma xasaayit moom moo ma ci leen waaye man daal li ma gëm daal mooy mbir da ngaa ñëw fekk fi te da ngay dem bàyyi ko fi war ngaa bokk ci ñu daal laa ci am lu may wax waaye fi mu ne nag kuy roy keek man man yooyu mënu ma cee wax lenn man na jàngoro si lu ne maa ngi dégg ñu deen koo man daal ñi ma ci jot a xam man saafonte ak ñoom duggante ak ñoom wallaay la képp koo xam ne man jàpp si li ma jàpp képp koo xam ne boo ma gënut man gënuma la ci li ma jàpp pour man kenn ku a yaa ngi ci dox doxin wa nga war a doxee mm-hmm. wax ci waxin wa nga war a waxee mm-hmm. man loolu laa loolu laa gis a la war a noonu a ci lu gàtt rek mm-hmm. ci loo xam si ni yow leer na lii moom ku ci tënk rek mën laa boole jànkatu xasida bu ko defee ñi nga xam ne ñooy siraane wala ñi nga xam ñoom ñooy bëgg topp nit ñi na ngir xasida yi ñu ràññee la ñooy ñii ñooy war a topp ak ñii la nga xam ne si mooy loolu nga ñëw waaw jànkatu xasaay de yaakaar naa war a dem fu ñu ko wowut benn war naa ko ci mbir mbir war na ko tënk ndax am jot baaxut yi ngeen di wax ni yëpp yaakaar naa ñi am jot a koy def waaye yaakaar naa kii nga xam ne day xëy yàkkamte àggatalim fa muy liggéey yaakaar naa doo am jotu def loolu te léeg ma dégg ñu ne xasaay daa fiir wërta ànd ak leen man loolu man gisuma loolu li ma gis mooy boo xëyee dama liggéey boo wàccee na ci xasaayit yaakaar naa man ba ma ci nekkee ba léegi wax dëgg yàlla avancement dongu laa gis te gis naa ñeneen ñu ci ne ñoo xam ñu ngi dox kon nag loolu man jàpp naa ay waxi caaxaan rek la am na nag fu mu lay àgg nag moom bu la neexee nga bàyyi mm-hmm. ndax boobaa kenn du la bàyyi moom farfos lay doon ndax kenn du la ko wax mm-hmm. waaye bëgg bëgg bëgg say mbir di dox te xëyoo gonto amoo métier mm-hmm. ci sonal nit ñi doo ngay nekk. parce ñu ngi daan léegi ñu takk ay ñaari moto ba ñetti moto léegi am si ñoo xam ne dañuy kii manière si kan. takki seen takki seen takki seen nga xool mais takki seen de. maam nga gën maanaam tey parce que tey mag yi bu njëkk ba. Hmm. ñoom Baye Ablaye ah, hmm. ah, ah, ñoom. ah suñu ñoom suñu Fallou Ndiaye ah nga xam ne macha allah. bëri na bëri na ah. ah, ah, nga xam ci ci nga kii xam nga waaw xam nga xam nga montre dafa rafet. Mhm. dafa jekk ci loxo. waaye bari na man li may gis jànkatu xasaay bari montre moom càmmoñ lañ koy takk takk takk jaaroo ak xexa bi bu nu téyee micro bi nii leen koy téyee takk seen seen bu gudd maanaam wone wu daal waaw xam nga xam nga maanaam ban tàmbalee ba léegi. ci benn moment bi ñu ne nii. benn débat bi ñu ne nii. tënkal naa leen ko bu yàgg xam nga tënkal naa leen ko. nee la ku nekk sa soir ku nekk la nga bëgg ku nekk la ngay dund. nit mënoo taxaw ne tey lii la war a dund. jàngatu <laughs> waaw waaw montre bi. waaw montre bi <laughs> waaw bi sax man dama koy jël suma noppee. <laughs> montre dafa rafet xam nga montre montre dafa rafet dafa rafet ci loxo. Mm. montre dafa rafet ci loxo. Mm. léegi nag comme que dafa rafet ci loxo. Mm. takku ko yàqul dara. taxu ko yàkkul dara mm. takk ceen nag moom waxaale ma ko loolu suñ borom da ko tere mm. loolu boo dee ci alxuraan gis fa ko suñ borom aaye mm. kon loolu lu jar a moytu la bu ko suñ borom aaye yonent bi aaye na ko kon xam nga lu jar a la waaye nag comme que moom le mën nañ ko takk te duñ te duñ ci benn daan pour ma dañ ko war a takk waxuma nag ñaar moom pour ma booy takk benn war a takk parce que ñun ay nit lan dun dun dun dara dun wàllu yu dun xut bu dun dara ay nit kese lan li nga bëgg la ñuy bëgg. ñu ngi ci cëppaandaw émission bi. ak Argane bi. léegi projet yi foo ci toll ak lan lañ mën a xaar ndax dafa mel ak Grand Théâtre moom yéen navien yi parce que yabu ngeen ko. Mhm. est-ce que mën la Grand ak projet yi fan nga ci toll waaw man nag de fi mu ne nii li ma jàpp ne moo ne sama kanam fi ne nii nii mooy album bi ma doon wax sàng album daa moo sama kanam xam naa ay Grand